moy tax mu len di man di signaler bepp vidéo bo xamné duggal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di top suñu pro jërë ngeen jëf mbokk yi and ak ñun ci seen site bi di senevision point com ñoo ngi leen di nuyu di lu and bu ngeen di and ak ñun mbokk yi di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com eh, te bu leen di fàttee bu cloche bi ndax moo leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañu ko ci suñu site bi ngir ngeen man di topp suñu programme mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi raji raajiun loolu nag bu ñu ko waxee mooy ci yàlla la ñu jógee woon waaye ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la ñuy delluwaat mbokk yi sa Diallo nekkoon maire bu Dalifort nekkoon kenn ci Khalifa Ababacar Sall nekkoon ci parti bii di socialiste moo wuy ji boroomam ci jàngoroy mbas mi di Covid 19 niki tey jii ci altine ji yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2020 ji ñu nekk moom sa Diallo. nekkoon maire bu Dalifort nekkoon kenn ci xalifa Ababacar Sall moo wuy ji boroomam moom mi nga xam ne kat atum 2003 la daal di tàbbi ci géewu politique bi ci ay kàddoom yu mu jot a xamle kat bokkoon na ci li ko convaincre ba mu dugg ci géewu politique bii mooy maître ay wadd waaye kat atum 2003 la ci daal di dugg jël carte de membre bu parti socialiste boobaak léegi mu ngi ci géew bi ba jamono ji mu nekkoon maire bu Dalifort politique euh, vous ma Yagoul, dugg par rapport à mon âge parce que 2003 là c'est dugg mais avant ça je me suis intéressé wu a une partie moins ma intéressé wu mais monde comme acteur donc 2003 aussi il faut le dire bon réponse on woon si benn combat euh, lu djola bateau djola là 2002 là donc voilà ça idole c'était c'était Maître c'est politique je laa supporté donc euh, nous socialiste socialistes, hein, 2000 j'étais contre en 2002 bu joolaa bi amee après yenn réponse yi politique yi ñoo ma révolté woon donc ma non ci politique bi ñoo décidé lépp il faut se battre donc voilà loolu moo pousse parce que mooyoon si euh, responsable yi yoroon association de famille de victimes mais dama gis ni politique yi moo taxawaay bi daal neexu moon daal dama ne donc il faut ñu bousculer ko il faut ñu bousculer leen tuuti loolu moo tax mu dugg carrément 2003 ma jël carte parti socialiste. ci altine ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2020 moom sa Diallo ci la dal di wuy ji boroomam ci jàngoroy mbas mi di Covid 19 ñuy ñaan yàlla mu xare ko aljanna senevision point com jërë ngeen jëf ci bàyyi gi xel. yi nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision vision com te bu leen fàttee di bës cloche bi.